fii ci marché Sandaga jaaykat ya fa nekkee mel na ni jëfeewuñu journée Ville morte bi nga xamante ni moom la ñu waroon amal. waaw mais pourquoi ñu koy respecté gis nga gars yi nañu bàyyi manipulation yi ñuy def di fonto nit ñi man mii maay jox sama bopp man maay jox sama bopp dépasse état joxuma dépasse ma sàmba joxuma dépasse keneen joxuma dépasse sama kër li fa nekk man maa koy réglé sama bopp keneen du ñëw. di ma jox dépense li may téye sama kër man maa ko xam kon donc benn gaayen du nekk fële pour ses propres intérêts pas pour l'intérêt du peuple sénégalais parce que dafa bëgg ay affaires yu muy kaas wala mu bëgg positionnement di ma wax ay journal journal maa bañ maa lank du ma ko respecté tey duma ko respecté parce que man ñàkkuma fayda xanaa balaa nga naan nit ki ville morte da ngay ñëw jël dépense jox ko. waaye nag bu ñu sukkandikoo ci kàddu waa jile li muy xamle mooy yëgul woon boobule information. loolu nag moom mm, yëguma ko yëguma ko amaana amaana yéen a ma ko wax bi ngeen ñëwee comprendre na waaye nag li tax yëguma ko xam naa ni euh, euh, bariwul lu may diglu ay ay ay rajo ki télé. moom nag li muy xamle mooy même bu yëgoon boobule information loolu du ko teree ubbi butigam jaay. loolu su ma ko yëgoon euh, wax dëgg yàlla man du ma tëj du ma tëj maanaam yëfi war nañ ko mën a doxale neneen. lu dul maanaam di tëj place yu nit ñi wala bu ne bu kenn dem liggéey mu nekk ab journée ville morte boo xamante ni tey ci talaata gi lañ ko war a amala ba tax na ñu nemmeeku ne fii ci marché Sandaga jaaykat ya ña ngay continuer di jaay li ñuy xamle mooy fas yéene wu ñoo tëj seeni boutique